alhamdulilahi alladi adhara min sirri xaqaiqihi dhatiyati alkamaliyati nuqush alawalimi wal aclam wa axraja min nuuni aljamci aldhatiyi anwaa alxurufi walkalimati walkalaam anzala min maqaami aljamci waltanzihi qur'anan arabiyan min xayri di ciwajin wa jacalahu mucjisatan baaqiyatan ala wajhi kulli zaman saaticat albarahin wasalaatu wasalaam ala man huwa fatixu baabil xadrati fi lilmi wal ayni wal yaqin sayidina muhammadin alladi kaana nabiyan wa aadamu bayna almaai wa tiin wa ala alihi wa asxaabihi almutaxallixiina bi xuluqi alquran wa man tabiahum bi ixsaanin ila axiri zaman mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew yéen ñëpp maa ngi leen boole nuyoo bi ñu yàlla boole mu gën a tedd ci nuyoo yi gën cee sell gën cee sakkan yàlla tënk ko ci juróomi baat jël aw turam yeewee ko ko waaye nag ku lóoralee ko barkeem bu yaatu ba ak yërmandeem yu law jë muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa nuyoo bi nag tabaarakallaahu gannaaw bi ma ko ñépp dana danaa ñennal ñenn ci biir ñépp ñi def li usul di tuddee atful xaas alal am biir ñenn ñooñu maa ngi ci jiital doomi soxna yi kilifa yu màgg yi nga xam ne ñoo ŋànk diina ji ŋànk tamit turuq yi nekk ay kilifa yu baax yoo xam ne ñooñu wan lan moo doon yoonu saxaabatul kiram yi comme nañu saxaaba yi wanee wanee leen fan moo doon yoonu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa di ngàntalu ci doomi soxna yi ci liggéey bii ñu fas yéenee ànd ak yéen te mu nekk lu jafe muy tafsirul quran te ku ne xam na jumtukaay yi muy ànd ak la ci war lépp kon bu rafetee mbaa mu baax rek yàllaa ci dugal ndimbalam ndax dañuy wax ne alquran jàpp bësi la foo ko wàccee rek wëcci fatara su boobaa kon liggéey boobu lañu bëgg a sémbu ñuy njëkk ngàntalu ci boroom xam-xam yi lépp luñ ci gis ci njuumte ñi jéggal ñu ko te defaral ñu ko te xam ne lu baax rek lañ ci jublu in uridu ila al islaaha mastataatu waaye wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu ilay unib téere la koo xam ne ku ko teddal yàlla saxal teraanga ci sa jëmm saxal ko ci say doom saxal ko ci say sët ba tax na koo mës gis mu am tedd nga àdduna ak rek alquran moo ko ko jox comme xas teral nag kenn mënatul laa xëñe ci teraanga waaye ku wan gannaaw alquran ba xas torox kenn mënatul laa teddalati kon téere boobu lañ fas yéene ànd ak yéen muy téere boo xam ne nag jàppal ne ci yàlla la bàyyeekoo. melaw yàlla la wu sax dàkk ci jëmmam ja ndax waxam la wax wax yàlla la ñu sax dàkk ci jëmmam ja muy melaw melaw woowa nag mën nga wax ne sifatul mawsuufi lil qidami la ni ko ahmadul busiri yu waxee yàlla nag jël alquran jooja mu nekkoon lu ñu toxal andi ko ci asamaan si tiim ñu ci néeg bu ñu tuddee baytul izza waaye njëkk loola nag lawhul mahfuz lañ ko njëkk andi ñu bind ko fa toxalee ko ci bay maanaam bay la lawxul maxbuus doon koo indi ci asamaan si tiim mu tolloog weeru koor guddee laylatul qadri léegi nag ñu jëlee ko ci baytul izza indil ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ñeent fukki atam ci dundam di ko wàccee pari xaaj pari ay saar par euh, maanaam ay ay ay euh, maanaam ay xissa ci kem laajal nit ñi ak ci kem tamit histoire yi ak ci kem tamit ni ko yàlla organisé ci diirab ñaar fukki xat ak nett la yonent bi def ci daara moom tamit ci la jàmmaarloo ko alxuraan ji ba mën ñu ko jox ñu koy tënkee yëj yi kon nekk na loo xam ne lu yàgg yàgg la moom tamit bi nga xamee ne nii alxuraan ji ñëw na ci moom nekk wax ju diis joo xam ne yàlla rekk moo ko mën a oyofal fekk ko booba ma nga ca xaarul xiraa jibril fekk ko fa wàccee ci moom alxuraan saar wi ci njëkk a wàccee di suuratul alaq kon noonu la alquran déparé bu nga bi ci yàlla la bàyyeekoo te bàyyeekoo wut ci jàllal ku ñëw ci max mahmud bàyyeekoo fa ñëw ci baytul izza door fa bàyyeekoo ñëw ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kam kem xew-xew yi ak ci kem ni ko yàlla programmé ci diirëb ñaar fukki at ak ñett kon loolu teel nga cee déggee ne wute nag yeneen téere ya téere ya ko jiitoo nekk téeméeri téere ak ñeent alxuraan moo ñëw euh, ñeenteel leen waaye boo ci génnee alxuraan téeméer ñett lay doon nga xam ne boo delloo ci mbindam xaadimu rasul boo koy jàng ci téereem mu nga tuddee tasawadu zixaar dafa ne téere yi yàlla mos a wàccee mu bàyyi ko ci asamaan ñëw ci jaami yàlla yi bu ñu la ko laajee ne xaddul la xaddul nag xaaf téeméer la maanaam deel kàtt muy téeméer ak ñeent bu la neexee tamit nga tënk ko ci ñetti xaraf muy samadu turu yàlla mooy tekki ñëpp jublu sama samaru tamit mooy ci maan li mu téere yi wàcc saat 60 la miim 40 la del 4 la muy 104 waaye téere yooyu yëpp téeméeri yaak ñett yëpp benn bis la wàcc benn jamono benn heure looloo waraloon seen nit ñi mokk luñ ko woon alxuraan rek la ci yàlla organiser taxawee ko taxawaay boo xam ne moo wàcc ci diirab ñaar fukki at ak ñett ànd ak loolu lépp tamit alxuraan moo ëppoon téere yooya yàlla jàppa jàppandal ko ba aw nitam tamit mokkal ko di xeetu Seydina tawreet la muy rëy rëy ñu ko mokkaloon passé wuñ ñetti nit linjiil noonu zaboor waxi nopp waaye alxuraan tey xale lu mu tuuti tuuti ñaareel fukki at fukki at ak ñaar juróom-ñeenti at nga dajeeg moom mu man laa tere alxuraan kon loolu day dëggal wala qad yassarna alqurana li dikri fa hal min mudakkir mu mel ni nag gaa yi nag bañ wàccee alxuraan benn yoon ñu laaj yonantu bi ne ko lawlaa nuzila hadha alquran jumlatan wahida lu teree yàlla wàccee alquran benn yoon ci benn heure ci benn xew-xew comme na ko defee woon ca Tawreet ak Linjiil sa Sabuur yàlla nag ne ko ñi ngi ko séq dama leen a xam yow ñi ko séq ak seen xel dafa ñor ñu fasaa lañ ñu mën a wax lañ te su ma wàccee woon alxuraan benn yoon man nañ laa laaj loo xam ne doo ko mën a tontu nga nekk di ko jéex waaye damay bàyyi luñ la laaj rek maanaam question buñ la laaj rek maa lay indil maanaam tontu la nga man koo tontu moo tax ma ne ko kasaalika li nu sabitu bi dama ko def ngir bëgg mu sax ci waaye damaa bëgg tamit wala yatuunaka bi mathalin illa jinaaka bil xaqi wa ahsana tafsira damaa bëgg luñ la indil rek laaj la ko rek ma man man maa leen indil tontu nga mën leen tontu ndax yàlla dafa baaxoo yonantu bu muy yónni day seet la gën a tumuraanke ci jamono jooja mu jël ko jox ko ko muy ngànnaayam jox ko ko muy force nga xam ne ku ko ci song rek mu daan la gis nga bi muy yónni yonantu yàlla Moussa jamono jooja li xewoon mooy njabar ñi mën a njabar lool ba mën a sànni yet bët gis yëpp jàpp na bi moom jaan comme ni ñu koy xewee mën a ci taxaw tamit di nit taxaw téye safara ne ma ngi koy lekk ci lu ñun ñuy gis waaye safara xam ko lekk dee nga gis tamit ku man a taxaw safara buy tàkk mu ne yëg la ca kawam yàlla nag ñëw may xam-xam yonentu yàlla Muusa boo xam ne dafay lottal xam-xamu njabarkat yépp te loola dugul njabar loolaay lan mooy yat la ko jox ne ko boo ko sànnee rek mu soppeeku jaan la ñu sànniwoon muy seeni njabar yépp mu wann ko jàllale bi ko ba dàqe leen ñoom njabarkat yi keroog noonu la def ba dàqewaale Firawna mu kabine boppam njëkk loola yàlla jayoon na ko ñeent fukki fa yu nekk benn yoon la dem toilette waaye keroot ba ko xeetu yonentu yàlla Moussa wa dàqee li des ki dundam bët bu set dana dem toilette ñeent fukki yoon waaw yaakaar naa ne 24 heures ku ci dem toilette maanaam ñeent ñeent fukki yoon yaakaar naa daanaka man ngay wax ne ca maanaam toilette ba nga dëkk kon gis nga loola yàlla jox ko ci loola ndortal la nga ñu maanaam ba mu yónnee yonentu yàlla eh, maanaam Isa booba xam-xamu médecine moo xewoon da nga ku feebar ba jaaxal ay mbokkam du man dara waaye bu ñu ko yóbboo ci médecin yi rek bu ñu defee la ñu def rek mu saafarawu ca saasa Moussa nag yàlla jox ko Isa kon yàlla jox ko moo gisatu ci wàllu médecine boo xam ne nag médecin mosu cee yegg ndax ñoom lu ñu doon for for seen foraay yëggutoon ci fekk ku gumba ñi mën a raay bët ba mu xool ci yàlla Isa ñëw man lool fekk ku mu wàññeeku mu ñaanal ko cër ya ñëwaat mu mën a ñëw fekk koo xamee ne ni passé na lool dee na sax mu ñëw fëgg bàmmeel ba koo ko jóg jox loxo jox loxo nit ñi foofu nag mercen su caayeek waaye ba muy yónni yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ju foor wax ju fasaa def ay discours def ay cheru yu jommal nit ñi moo xewal wax joo xam ne fu ko fu ko nit waxee rek da ngay yéemu yàlla nag léegi ñëw wàccee ci moom téere boo xam ne lottal na ñu njëkk ña lottal ñu mujj ña walis ñi mën a indi lu toll ni benn aaya ci moom moo tax keroog ba ko yàlla wàccee ci moom téere bi ñu bëgg fii gaa yi nekk fa naan yonent bi moo ko wax ndax moom waykat la moo ko njabar njabarkat la yàlla ne wax ngeen wax joo xam ne dafa leen a da leen a delloo tontu te yëgu leen ko su fekkee yonent bi moo wax alquran alquran kay mat na téeméeri maanaam mat na téeméeri saar ak fukk ak ñeent muy 114 ci ay saar ay xisibam juróom-benn fukk la kon kay yéen jéemal leen ma ba indil ma rek wenn saar ci al fukki saar ci alquran fukk la leen njëkk a dëkk te xam nga saar mooy lu am commencement am mujj làmboo maanaa la ca gën a gàtt mooy innaa ataynaakal kawsar nga xam ne ñetti aaya rek la la ca gën a gudd mooy suratul baqara yàlla leen ko nag faatoo bi ashri suwarin mislihi muftarayaat mënuñ koo indi mu ne kon nag jéggal naa leen juróom-ñeent yi indil leen ma rek maanaam benn saar faatoo bi suurati min mislihi waaye du yéen rek ne mais wad'u shuhadaakum min duunillaahi in kuntum saadiqiin mënuñu ko indi mu ne kon waxatuma saar indil leen ma usloo bu mel ni alquran ci wax lu fàddu ci wax bi fasaar ju am njariñ joo xam ne na am ren am am am garab am dàtt maanaam am ay banqas am ay xob am meññeent mu mën a jariñoo ne leen kon nag fal yàttu bi xadiis yi misli yi mënuñ ko indi mu ne kon nag ñëw leen ngeen jébbalu te xam ne qul in ijtamaat il insu wal jinnu ala an yaatu bi misli hada alquran laa yatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin zahira gaa yi nag ne ñoom wax dëgg yàlla li li yàlla wax dëgg la waaye nag ñoom ñu jàpp pare rek rëy tax nag nangu ñoo mel ni Musaylamatul Kazzaab moo ci doon jéem a jéem ne ah comme yàlla dafa waxoon fukki saar man danaa jéem su ma defee benn baax na ba ñaar sax waaye jéem buy feeñal ak tëdde ñàkk a def te dese kumba sax moo ko gën mu taxaw ne moom day toppandoor wan naasiaati xarqan ci la nekk naan wasaariaati sarxan walxaasidaati xasdan tax taxnan xam nga wax jooju ñàkk solo la mu ne man Musaylima maa ngi gëj ne mbay mii nit ñi bay bay la góob yi nit ñi góob seen tool yi góob la waaye tamit mbojj mi ñuy bojj seen dugub yi mbojj la wax jooju amul njëriñ ba ulamaaw balaaxa ñu ngi ko ñaawal ne raqiqatun fii lafdiha wal maana qawluhu wa tahinaati tahna kon alquran mooy téere boo xam ne lottal ñu njëkk lottal ñu teew lottal ñu mujj walis ñi mën a indi lu mel ni moom te yàlla jagleel ko sayyidina Muhammad sallallahu alayhi mu nekk nag miracle bi gën a yéeme ndax yeneen miracle yonentu yi li ñuy rëy rëy rëy maanaam saxut passé na ba mu rek la passé bu ñu ko alxuraan waxutoon sax kenn du ko xam yonentu yàlla Suleymaan ak xorondong wa li xisa bay rëy rëy bu ko alxuraan waxutoon kenn du ko xam gis nga ko tamit yonentu yàlla Muusaa ak yet wa bu ko alxuraan kenn du ko xam yonentu yonentu yàlla Ibrahima ak safara wa bu ko alxuraan kenn du ko xam yonentu yàlla Yunus ak géej ga bu ko alxuraan waxutoon kenn du ko xam waaye kon ñoom ñëpp am ñu ay miracle waaye seen miracle yi saxut dafa ñëw rek passé dem na jeex na yonent bi nag la yàlla may miracle boo xam ne soo dégloo dégg ko boo xoolee gis ko boo làmbee tamit daj ko muy alquran mu nekk mujizatun xaalidatun dafay jóg mukk fekk maanaam yàllaa ngi fi nga xam ne day continuer bañ dugg aljana tamit alquran nekk fa ñu ko fay jàng foofa di ko bànnee kon loolu moom rek moom la ko yàlla jagle alquran jii nag danaa la wax ni mu doon wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi am na ay façon bu daan wàcc ci moom am na ci façon boo xam ne day mel ni ay ñaari weñ yu ñuy tëgg mu ne nag boobu moo ci gën a métti moo war waraloon boobu bu ko fekkoon maanaam bu ko fekkoon ci gëléem da gis gëléem nga day lox di lox di lox ba ne rëkk ci suuf si ngir maanaam diisaayu wax ja moo tax dafay dëggal yàlla ne inna sa nulqi alayka qawlan thaqila waaye tamit am na ci yoo xam ne day mel ni Euh, day dégg kàddu ga kàddu jibril gi mu ñëw indil ko baar ya waaye du gis jëmm jë am ci boo xam ne day jàkkaarloog jëmm jë jëmm jibril ji carrément yonentu gis na ko ñaar yoon am ci yoo xam ne nag jibril day sol mbubam nit melokaanoo nit rawatina ku ñant de di xeetul bii benn buur la la yonent bi lay jibril ñëw sol mbubam carrément ñëw taxaw di wax ak yonent bi ba jeex ak yonent bi moo ko moo tax nag euh, am na ci yoo xam ne da koy fekk mu mu toog nii rek waaye buy wàcc ndeysaan bu doon jamonoy sedd danga nga gis day ñàkk koy xet même bu ko fekkoon muy sangu sax di diisaayu wax ja day waral maanaam mu day mujj ñàkk ba nga xam ne da nga yéemu ci moom xam ne kii am na luy wàcc ci moom dootul mën a wax te kenn ku dul yàlla rek lay lay wàcc rek lay mën a jël waaye yàlla ti may na ko xel moo xam ne lu mu taataan dootul sennati sa nuquri uka falaatan sax yonent bi du jàng dara di ko fàtte lu ko yàlla jàngal bu jaar ci Jibril lépp la mokkal fàttewul ci daal kon kan bu baax tamit la ko yàlla jox mën a mu mën a taataan loola kon façon bii la daan wax yi daan ñëwee ci yonantu bi ci état maanaam façon état bi tamit la daan ñëwee ba mu ñëw ci moom ci alquran ci téeméeri saar ak fukk ak ñeent ak juróom-benn fukk gisi bi saar yooyu nag am na nu mu daan wàccee te toftale bu ñu la laajee ci alquran ban saar moo njëkk a wàcc mooy suratul alaq moo njëkk a wàcc ci alquran mooy iqra bismi rabbika si njëkk a wàcc tombe bi am na ñeent bisab altine mu fekk yonent bi ca xaarul xiraa moo tax keroog ba saar bi wàccee nañ ko jàngal jàngal mu ne ko man naka laa jàngee te doon nuwuma ko naka laa jàngee te aliwa ji ma war a jàngee yetta buñ ko léegi nag ci la mu jël lox daw dem seeti soxnaam Sayyidatuna Xadija ba mu demee rek mu jël mbàjj yee sàng ko ko yonent bi lox rek ne ko ba tey daal li ma doon yëg maa ngi koy yëg Sayyidatuna Xadija ku yeewu la ci la ne ah man de déggoon naa ki jàngkat yu njëkk yi ñu ne maanaam malaaka du gis awra te jigéen léppam awra la bàyyi ma dindi sama musóor gi comme maa ngi ci néeg bi kenn nekkul fii su ma ko dindee rek bu nekkee malaaka dinaa xam ba ba ba Sayyidatuna Xadija fokkee musóor rek yonent bi ne dem na gisatuma ko mu delluwaat musóor gi rek mu ne ko ñëw na ci la door xam ne nekki kon lii dikkal sama jëkkër gi nekkul jinne nekkul saytaane mais malaaka la ci la daw tamit yemut ci naka jekk ku mos a jaaxle rek seeti sëriñ maam man yi dem seeti warqatu ibnu Nawfal ne ko sama jëkkër dafa bàyyee ko ca tàngoor wa ànd ak daladi dalal naa ba sonn léeg-léeg mu dal léeg-léeg mu ñàkk a dal dama lay laaj nag maanaam moom lan moo ko jàpp mu ñëw ànd ak moom ba mu ñëwee mu laaj ko lu muy dégg ak lu muy gis ak mu am lu mu ko ca nettali Waraqatu ibn Nawfal ne ko sa jëkkër jii li ko dikkal mooy li daan dikkal yonentu yàlla Muusaa ci kii ci la yonentu yi jeexee gannaaw ba àdduna tukki benn yonentu dootu amati ak yellanti woon jamono ji ñu koy génnee màkka mu fekk ma sama digg doole kon danaa xeex dimbale ko ci ñu koy ñu koy génnee yonent bi jooy ne ko danañ ma génnee mu ne ko li nga indil sa xeet yi kenn mosu leen ko indi te génneewul la kon gis nga ko ba mu tàngee ca biti jabar bi dafa fekk jabaram di félicité liñ ci déggee kon góor ñi bu ñu tàngee ci biti war nañoo mën a am soxla yu baax yu leen mën a dalal nga xam ne la ñu tàngee woon bu ñu ñëwee ci moom dañuy mujj fàtte ko waaye nag foo toll sa jëkkër gënal ma frigidaire yaa war a fexe ba nekk frigidaire sa jëkkër xam ne bu tàngee nga mën koo waaye bu fekkee tamit bu tàngee nga ñëw gën koo tàngal boo ko joxee ndox mu sedd mi day mujj tàngaat fu toll tamit jëlal ma télé nangam ak nangam fexeel ba nekk sa télé jëkkër ba bu la gisee rek kontaan Sayyidatuna Xadija nag dafa fekkoon ba nekk télé Seydina Muhammad nekk di félicité moo tax nag yonent bi mos ta jàmba dara ci biti kon li njëkk a wàcc ci tënk mooy la alaq bañ ca bàyyeekoo nun wal qalami moo ca tegu ba ca tegu muzammil mudassir door a ñëw suratul lahab bi sam su kuwirat ñëw sabbi isma rabbikal a'la wal layli wal fajri wa duha alam nasra wal asri wal aadiyaati suratul kawsar door a ñëw takkaasur door a ñëw suratul maawun ñëw suratul kaafiruna suratul fii ba pare nag ba yii ñëwee naj mi door a ñëw wa ixlaas moo jiitu naj mi door a ñëw abasa suratul qadri wa shamsi wa duhaaha suratul buruj wa tiini maanaam li ilaafi door a ñëw xuraysin ñëw léegi dem ba ci alqaaria ñëw maanaam qiyaama ñëw humaza ñëw mursalaat xaaf balak taariq iqatrabati saa saat ak laaraaf suratul jinni door a ñëw yaasin ñëw furqaan ñëw fatiri maryama taaha waaqia shuara namli qisas door a ñëw bani israil yunus hud door a ñëw yusufa xijri door a ñëw lanaam door a ñëw saafaat luqmaan sabai zumar door a ñëw loolu xaamim sageda maanaam mumin door a ñëw xaamim sageda ñëw xaamim ayn sin qaaf suxraf ñëw duxaan jaasiya laxqaab zaria door a ñëw rashiya ñëw këf fi ñëw nax li ñëw noox ñëw ibrahima ñëw anbiya yi ñëw muminuun a ñëw tanzilu sageda door a ñëw maanaam euh, tuur yi ñëw mulki ñëw al alxaqatu ñëw saala saailun door a ñëw léegi nag nii la doon alquran di toftale di wàcc amma yatasaaluna ñëw naasiati issamaaun fatara issamaaun shaqa suratu ruum door a ñëw ankabut door a ñëw waylu lil mutaffina door a ñëw lii boo ko calculé dana la jox juróom-ñetti fukki saar yoo xamee ne nii ak maanaam ak ñett yoo xam ne ñu ngi wàcc màkka ci toftale bii nag la la la la maanaam wàcce ba léegi sax am na ñoo xam ne seen kaamil ci toftale bi lañ ko nosee nga xam ne ñoom bu ñuy firi suratul xalaq la ñuy njëkkee teg ci maanaam xalam teg ci muzammil toftalee ko nii nii la alquran wàcce yii saar na ma limal la mooy saar yi nga xam ne moo wàcc màkka diira fukki attan ak ñett ya fa sayyidina muhammad def kon neen fukki at ak ñett yam def màkka daal lii la la la ko fa jibril jàngal mu bàyyee ko ci yàlla mu fexe tamit ba jàngal ko xeex bi kon yii mooy saar yi nga xam ne wàcc nañ màkka limal na la léegi nag danaa la limal tamit saar yi nga xam ne ñoo wàcc madinatul munawwara boo ko calculé dana nekk fanweeri saar ak benn baqara moo njëkk a wàcc fële ca madina lanfaal door a ñëw ala imran laxsaab ñëw mumtaxina ñëw nisaa yi ñëw ida suzlatil ardu ñëw xadid ñëw muhammad ñëw raadi rahman hal ata alal insaan door a ñëw talaaq lam yakuni xashri léegi nag alaq door a ñëw falaq kon door a ñëw ak naasi ida jaa nasrullaay ñëw fatxi ñëw nuur door a ñëw xajji munaafiquuna mujaadala xujuraat tahrim door a ñëw safi jumaa door a ñëw ak taxaabun ak fatxi ak tawba ak maida yii fanweeri saar la ak benn fekki saar yi ma la limaloon maanaam ca màkka boo ko boolee lépp mu jox la téeméeri saar ak fukk ak yi moom moo wàcc ci alquran muy téeméeri saar ak fukk ak ñeent di 114 saar kon loolu tolloog samadu tolloog tamit bi maanaam xaddu léegi nag saar yi su ma ragalutoon guddal naa la wax ñaata saar ñoo ci am naasix mooy am na ci yoo xam dañoo folli aaya ya nekk duñ ko appliqué waaye ñu ngi koy jàngale di ci yàlla waaye atte ba nekkatu fa am ci yoo xam ne dañuy folli atte ba ak aaya yépp am ci na saar yoo xam ne am na naasix am mansuux am yoo xam ne naasix rek la am waaye amul mansuux am yoo xam ne mansuux rek la am waaye amul naasix am ci yoo xam ne amul naasix amul mansuux waaye boo ma toppee insha allahu rabbi bu ma ci maanaam sax min aw nunsiha danaa yi nga xam ne saar yi nga xam ci alquran ñoo am naasix ak mansuux ak yi ko amul insha allahu rabbi kon topp ma bañ yegg foofu léegi nag euh, alquran yi ba mu ñëwee nii yonent bi moo doon benn maître boo xam ne moo doon jàngal ñépp fexe sonn lool ba dugal alquran ci dënni góor yàlla yi waaye li muy sonn sonn ci daara ak la mu cay yàgg-yàgg ak li muy mën a mën a mën a jàngale yàlla dogal na fukki kaan ak ñeent rek la yonent bi formé ñu mokkal alquran ci dundam ñi ci des nii dañuy mokkal genn wàll ñuy mokkal lee waaye mokkal alquran lépp taxaw man koo tari minal baqar ila naas fukki nit ak ñeent moo moom la ko yàlla defaloon ci ci dundam fukki nit ak ñeent yooya boo delloo ci mbiram maam xalifa ci miir àqu safaan lim na leen nee na jamaa al quran al muazama zaydun wa muazun ubayun niamal walaahu wa abu ayuba tamimun wa usmaan nun la fi ashraqat bihi lbatxaawu summa minhum ubadatun wa mnu masudin wa man tunma lahu dardaawu wa aliyun qaysun wa saalimun aydan wa huwa mawla saidin fa hum qurraahu fukk ak ñeent ñii ma limal la ñoo mokkal alquran ci jamonoy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fukk ak ñeent ñooñu sax Aboubacar li muy baax baax bokkut ci Aboubacar mokkaltoon alquran ci jamono yonent bi donte mooy premier xalifa Omar ibnu Xataab li muy baax baax ak li muy ñàkk-ñàkk caaxaan bokkut ci mokkaltoon alquran ci jamono sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ousmane moom mokkaloon na Ali ibnu Abi Talib ñaari riwaaye moo ci am ñi dañ ne mokkaloon na ñenn ñi ne déedéet bi yonent bi génn àdduna fukki saar rek la mokkal ndax xare ñoo taxoon gannaaw si di la tëju juróom-benn weer ci ba mu génnee rek la door a mën a tari kaamil ak yàlla kon gis nga ci la borom xam-xam yi jëlee ne mokkal alquran du farata bu doon farata kenn du ci jiitu Aboubacar ak Omar ak ñu mel ni ñoom waaye nag mokkal ci moom farata la fexe ba mokkal ci mooy loo gàtt-gàtt aliwa fexe ba mën a mokkal fatiha saar wala fatiha ay saar waaye nag la ñàkk gi ñàkk nekk farata tax terewul ku la ëppale lu mokkal ci alquran boole ko gëm yàlla di ko pratiquer bu yomal xiyaamee moo lay sut étage ak immeuble ba li ko waral mooy darajaay alquran darajaay maanaam darajaay aljana yi mooy état bi aljana yi état moo tolloog maanaam xarafi alquran yi moo waral benn xaraf boo mokkal ci alquran di ko jëfee rek am nga benn daraja ci aljana moo tax yonent daan wax ne iqra warqa jàngal ndax nga yéeg noo gën a jàngee ci alquran su boobaa maanaam sa daraja ci ci ci ci aljana maanaam gën di gën a kawe gën di maanaam gën a sori kon darajaay darajaay darajaay kii darajaay aljana yi moo tolloog maanaam xarafi alquran yi ku la ci ëppale lu mokkal rek bu yow yowmal qiyaamee kooka dafa bokk ci ñay tiim waaye du bokk ci ña ñuy tiim alquran moomu nag boo doon calculer ay xarafam xaraf yi dana la jox million ak ñaar fukki junne ak juróom ci ay xaraf kon nag yow dara maanaam ah xaraf boo ci mokkal am nga daraja kon boo lëggee dana am dëkkuwaay ci aljana yow mokkal alquran di ko jëfee lu mat million ci ay dëkkuwaay ak ñaar fukki junne ak juróom yooyu dëkkuwaay la yaakaar naa ne doy na dëkkuwaay kon loolu moo toll maanaam kii alquran aayaat yi nekk ci alquran aaya yi ñu bëree bëri dañuy wax ne lim bi ci gën a siiw mooy 6666 waaye boo ko seetee ci xafs bi wala nga seet ko tamit ci warsa bi da fekk ëpp na loolu bu bëree bëri waaye lim la woon bu fi yàgg rek muy laxnul awaam bu ñëpp miin waaye alquran lim am ci ay aaya ëpp na loolu muy 6666 moo gën a waaye boo doon calculer xisib yi alxuraan am 60 lay doon xaaj kaw bi am 30 xaaj suuf bi tamit am 30 boo doon calculer bi maanaam suwar yi muy saar yi nga xam ne moo nekk ci alxuraan da lay jox 114 comme ni ma la ko waxee waaw boo doon calculer maanaam baat yi baati alxuraan yi dalay jox juróom-ñaar fukki junne ak juróom-ñaari junne ak bi maanaam ñeent ñeent fukk juróom-ñaar fukki junne ak juróom-ñaari junne. ak ñeent fukki baat moo nekk ci alquran alquran moomu nag boo doon seet bi maanaam baat bi nekk ci digg alquran boo ko doon calculer pari ay xaraf pari ay baat yaa ngay yegg ci suratul kahfi fi yàlla di waxee ne laqad jita shay'an nukuran baatam nukuran moo nekk ci digg alquran su boobaa nag kaaf gi mooy nekk ci xaaj bu njëkk bi raa gi nekk ci xaaju ñaareel bi waaye boo ko doon seet ci par ay suwa ay saar saar yi nekk ci digg alquran mooy xadiid ak mujaadala bi nekk ci xaaj bu njëkk bi bi nekk ci xaaj bu ñaareel alquran moomu tamit ci juróom ci ñaar fukki lettre ak juróom-ñett rek ci la composé bi mooy mooy mooy xuruuf abajada ya rek 28 lettre muy alif ba ba ca yaa waaye xa maanaam xaraf bu ci nekk su ma ragal toon guddal danaa la wax bu ne ñaata yoon la ñëw ci alquran boo doon seet alif moom kenn rek baatu alif lim ñëw maanaam moom kenn ci alquran moom maanaam moom moom moom baatam alif li mu ñëw ci alquran mat na ñeent fukki junne ak juróom-ñett dégg nga ak ñeenti téeméer moom baatam alif rek lim ñëw ci alquran nga jël maanaam ci léegi xaraf bi ci tegu muy baa moom li mu ñëw ci alquran man na onze mille quatre cent vingt ci la boo doon calculer baa yi nekk ci alquran yi baa yëpp loolu la lay jox boo doon jël bi maanaam saa yi nga xam ne moo nekk ci alquran junne rek la ak ñeenti téeméer boo doon seet bi maanaam Euh, maanaam taa yi nekk ci alxuraan mooy junne ak ñeenti téeméer boo doon seetal saa yi da lay jox fukki junne ak am ñeent ak juróom-ñett fukk boo doon jël bi maanaam jiim yi nekk ci alxuraan 3322 la lay jox kon su ma ragalutoon guddal danaa la wax li ma la commencé alif ba ta sa jiim ba ca yaa waaye boo delloo ci téere bu ñu tuddee maanaam majmuul ulum wa matlaul nujum imaamu nasafi liggéey ko dana la wax xarafu ne ñaata yoon la ñëw ci alxuraan bu la am téere boobu jafee mën nga dellu ci benn téere boo xam ne suñ mag ñi ci réew mi kenn moo ko ci bind di borom xam-xam bu mag ñu ko tuddee alxaaji Amadou Dem bi dëkkoon Sokone nga xam ne mag ñi ci réew mi moom kenn la ci yàlla jagleel moo ci firi alxuraan def ko téere mu nekk ñaar fukki yoo xam ne nii moom la def téere nga xam ne daanaka li ëpp lu yàgg ci dundam def na ko ci yàlla nañu ko yàlla fay kon xaraf yooyu boo ko doon calculer moo nekk ci alxuraan léegi nag kon wax naa la ne yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu fi nekkee di jàngale diiram ñaar fukki xat maanaam ak ñett fukki kàng ak ñeent la amoon waaye yonent bi yàlla ñu ko yàlla fayal ko organisé la dafa amoon ay secrétaire yoo xam ne lépp lu mos a wàcc ci alxuraan ak seen liggéey daal mooy bind ko moo waral loo bind mu sax loo bëgg nga mën koo jëriñoo dee ko bind xam nga te alxuraan bi ko bind toon du yegsi ci ñun nii moo tax da yaaram yi dañuy wax ni maa ba xarra wa maa xutiba farra wala loo xam ne da nga koo wax sànni ko wax ji day naaw kenn du ko mën a jëriñoo waaye su fekkee da nga koo bind su boobaa day nekk lu ñuy man a jëriñoo moo war waral yonent bi luñ jëriñu ci moom gannaaw yàlla bind moo ñu ci dimbale ci demee ni ay maanaam ay alquran ci demee ni xaddisa bi moom dafa xiroon ci alquran ba ba mu fi nekkee dafa daan wax ne sama xaddis bu ko kenn bind ñu ne ko lu tax mu ne damay bañ mu jaxasoo wax yàlla ji te bu yàggee da ngeen xam lu ma wax du ngeen xam lu yàlla wax te loolu moo sànq yeneen xeet yi jiitu woon dañu dem jaxase seen wax waxi borom ak seen waxi yonantu danañ wax ne yàllaa wax fekk seen yonantoo wax léeg-léeg ñu bi wax na prophète bi te fekk yàlla moo wax moom nag ba mu génnee àdduna ci la ñu ba saaba yi sax nañ ba génn àdduna Aboubacar Omar ak ba ki jamonoy taabiin yi ne ci lañ commencé dagale xadiis yonantu bi ibnu maslamata mooy ki ci njëkk a taxaw taalif ci fànn googa ci la maali maali door a ñëw indi ci indi mu waxta maanaam bu buxaari yi ñëw mu muslim door ñëw ñu kon ñoom ñii ñoo ci njëkk a def ku ñu tuddee nag ibnu xasmin mooy ki njëkk a taxaw ci dajale maanaam xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi xitteem lépp mooy nañu bind alquran te booba këyit yi amul fañ lañ ko doon bind ci ay xànc di ko bind ci ay xob lii ñu koy bind ci ay der lii da ngay jël benn garab rek xas ci ba am loo mën a kii bind ko ci mu nekk nag lu ñu dajale noonu waaye yonent bi li fii nekk lépp ñu bind alquran sallallahu alayhi wa mosta nekk kaamil ñu mën a dajalee benn place nga mën a wax ne maa ngi jël téere ba dem toog fële baat ya lañ yoo xam ne bind nañ lépp waaye nag dafa jaxasoo toftaloo toftaleewut nii ñu toftalee woon ko mënuñ ko tamit boole woon lii ma ca kii kii yore le kii yore le mu nekk lu tasaaroo waaye nag dara bu ci ndax yàlla moo garante ne alxuraan bu sànku ne moo waral moo ko wattoon ba mu bàyyeekoo ci moom te ci moom mu jaay lu ko wattoote ko mu bàyyeekoo ci moom ñëw ci lawhul mahfuz ñu wattu ko mu bàyyee ko fa ñëw ci bay baytul maqdis ñu wattooti ko mu bàyyee ko fa ñëw ci euh, jibril mu wattu ko mu bàyyee ko fa ñëw ci dënn sayyiduna muhammad mu wattu ko mu bàyyee ko ci tamit mu dugal ko ci ay dënn ay góor ci ay saxaabaam mu wattu ko waaye mu wattu ko tamit ci mbind moo tax yàlla ne inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun tey nag yàlla def na ko tey wattu ko day gën di day gën dëggu rek tey ñu ci dënn góor ñu bëri waaye tamit dem na tey bañ wattu ko ci ay kaamil yoo xam mën nga yëkkati jàng mu tuuti lool dem na tey bañ waxtu ko mu nekk ci internet bi dem na tey ba nga xam ne sa portable bi gën a tuuti mën nga cee dugal kànju alquran bi mën a dox ak moom te maanaam doo ci yëg daal kon yàlla lim noonu may waxtu alquran wax ju dëggu la jamono bi nekk day gën a dëggu duwul luy toxalu mukk loolu la wuuteeg yeneen téere ya yooyu garanti wuñ woon ñooñu yàlla dafa wax ne ñoo koy wattul seen bopp bi mas tuhfizu min kitaabillahi la waxoon mooy ne li nga xam ne wattu nañ ko ñoom ca seen téere bi muy tawreet ak linjil kon ñoom ñoo ko doon wattul seen bopp alquran nag yàlla dafa ne kenn doyul ma ci maa koy wattul sama bopp kon ñoom ñaar luñ benn moo war a yële yëpp sànq nañ dugal nañ ci lu ca bokk génn ci lu ca bokk lu leen avancé dañuy def ko ca daf nga dégg naan nangam testament am niveau testament nangam na wax yàlla amul niveau fa mu tolloon la moo tax benn waay bu kàccoor dafa mës a bind tawreet yokku ca wàññi ko rafetal mbind ma dem présenté ko gaaya ña ko moom ñooña rafetlu ko kontaan na mbind ma rafetee décoré mu bind liñ ji jàngal bi guddi bi rafetal mbind ma maanaam présenté ko nasaraan yi ñooñu kontaan ca décoré ko mu bind alxuraan yokk ca wàññi ko présenté ko jullit ñi ñu àcc ne dañ koy rey parce que dafa wàññi téere bi yàlla bi yokk na ci lu ci bokk mu ne ah dama doon moo ci gën a jub ban moo ci a tegu ci dëgg waaye yéen jullit ñi yéen nekk ci dëgg gis ni ki tey ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan kon alxuraan rek mooy dëgg yonent bi nag war nañ koo roy ci suñuy dund ba loo bëgg a bañ mu sànkooti utal ñu bindal wala ngay bind moo waral moom amoon na ñaar fukki secrétaire ak juróom-ñett 28 ñoo xam ne dara du seen liggéey bind rek ñooña maam xalifa bind na ko mu ne ka ci jiitu mooy ibnu saadi bi da ko daan bind zubayru yu ubayyu da daan bind aboubacar omar ousmane aliyu da daan bind saxru talxatu ibnu kaysin yasid ak zaydu ñooñu dañ daan bind <coughs> ba tey maanaam muawiya ibnu xasnata ak omar ak xuwaytib ak ñaari xaalid ya ibnu walid ñoom ñëpp naanaam dañ daan bind ca bindkat yi lañ bokkoon mat ba tey Hamza ca bind yi ibnu Yamaani ma Xusayfatu ibnu Yamaani mu Ayqibu ak Abdullahi da daan bind Xuseynu da daan bind ak ub Abaan ak Amir ak Hamsatu ñii la yonantu bi maanaam délégué woon ñoo xam ne dara duwut seen liggéey lu dul ne rafet nañ loxo gaaw nañ ci bind aay bu wàccee rek mu ne bind leen te ngeen dugal ko ci place sàngam ñun dañu nekkoon loo xam ne lu bëggal sànku ci alxuraan rek ñoo ko ñoo koy kon ñii ñoo doon secrétaire u Seydina Muhammad yi nga xam ne lépp lu yonantu bi soxla wax rek maanaam ñoo ko koy bindal kon bind am na solo lu jara jara baaxi xel la moo tax na bi yonantu bi génne àdduna dem na waaye alquran dajale wuñ ko li ma la wax rek lii mi ngi ci ay xob lii mi ngi ci ay der lii ñu ko bind ci ay kiiwu garab yu jël léegi nag yonantu bi génn àdduna kaamil amut waaye nag dajee nag xam nañ ko nii ci ñi ko mokkal ca noona boole koog tamit toftale gaal nañ ko war a mel noona waaye taxut nag mu nekk loo mën a yëkkati dem toog benn place jàng loolu amut Aboubacar toog ci xilaafa bi yàlla dogal bi mu toogee la mu njëkk a yittewoo mooy Musaylamatul Kazzaab mi doon oti nubuwa xam nga moo doon moom laa wax sànq mu doon topp na alxuraan dafa bindoon yonantu bi leetar ne ko suuf si maa ngi yow ñoo ko séddoo ñoo ko moom genn wàll gi yëpp yaay seen yonantu geneen wàll gi man maay seen yonantu ba bind neen min Musaylima ila Muhammad rasulillah fa inal arda nisfuha li wa nisfuha laka suuf si kat genn wàll gi yaay seen yonantu genn wàll gi maay seen yonantu yonantu bi bindu lu nekk neel min muhammad rasulullah ila musaylimatul kazzab leetar bi mu ngi bàyyi ko ci muhammad jëm ci musaylima yokk ci ne ko kazzab mooy fenkat bi yonantu kenn du moom dëgg tëgg gi mu ko tëggal kazzab ki siratul mubalaxa dem na ba génn àdduna mën ta waxati dëgg lu mu wax rek fen lay doon même yàlla tamit namu ak fenam tey bu taxawoon borom xam-xam ne bu taxawoon ne la ba nga xool ñu ne mbaam la yàlla mas ko ko soppi ko léegi mu nekk na ñu xam ne fenn bu ne lii tamit maanaam golo la bañ yaakaar ne golo la rek buñ ko seetee fekk mu nekk xaj kon li ko yonent bi wasafalee maanaam kazaab moo tax dund na ba génn àdduna mënta mënta waxati dëgg yàlla ñàkkaloo ko barke arab yi ñu bëgg kawar lañ ku ku yonent bi mos a raay sa bopp boo ñàkkee kawar dangay am kawar mosay demee ku mu raay sa bopp rek nga ñàkk kawar arab ñu bëgg ndox mu neex lañ lu ndox naqari naqari bu ko yonent bi ñaanam tafli ca mu gën a neex ndoxu keneen bi waaye nag moom bu ndox neexee bu ca taflee mu mujj naqari kenn du ko mën a naanati ci la nekk ndeysaan ba mujj génn àdduna ku ñu tuddee wax si moo ko rey wax si yu mi rey xam sa mi bàyyi taxu yonantu bi moo mujj rey maanaam musa ba daana bàkk moom musa moom wax si yu mi ko man de bi may bon bi may baax maa rey ki gën a baax ci nit ñi waaye bi may bon bi may baax bi may bi may bon naa dafa bëgg wax ne bi may bon maa rey ki gën a baax ci nit yi bi ma demee nag ba nga xamee ne fu mu ne nii baax naa maa rey ki gën a bon ci mi luy loolu mooy bi mu tuuba bu nekk ku bon wax si moo rey gën a baax di bàyyi taxu yonent bi di xam sa waaye bi mu demee ba tuub nag moo rey ki gën a bon ci nit ñi muy musalimatul kazaab mi doon xoote ne moom yonent kon wax si yu moom moo ko léegi nag euh, boo gisee ma indi sa boobu maa ngi ci namm bi yonent bi génnee àdduna nag léegi ñi nga xam ne dañoo murtatoon te ñi ca gënoon a bëri ñi nga dëkk yamaama ànd ak musalimatul kazaab mi di oote nubuwa Aboubacar dafa ne la déclaré guerre pour xeex ak ñoom bi Aboubacar nag demee xeex ak ñoom yàlla dogal ñu baree bari lu mat juróom-benn fukki nit ñoo xam ne seen dënn yi alxuraan lañ ca dee ca xare ba ñii dañoo mokkal li am na sax ñoo xam ne mokkal nañ lépp waaye daal juróom-benn fukki nit ñoo xam ne seen dënn boo ko xaree fekk ci alxuraan ci dana Omar ibn Xattaab oo Aboubacar ne ko nañ waxtaan ñu bokk tëju mu ne ko alxuraan mii bu nekk ci dënni nit ñi te binduñu ko. bu ñu deewee rek bu nit ñi bu ñu dee ñii rek suñu gaa yi ñi fi nekk dee rek ñi ko mokkal dee rek alxuraan dana effacé kon ñu tam ñu mujj ñi dañu am problème léegi dama lay ñaan daal nañu formé benn commission ñu war a dajale alxuraan fexe ba def ko benn kaamil Omar ah, Aboubacar ne ko lu yonent bi defutoon man ñemewuma koo def loolu bi daa la kon ndeke wax nit ne ko nañ def nangam mu ne laa yonent bi defu ko woon du ko def Aboubacar moo ko njëkk a wax mu ne ko nañ tegal kaamil ak yàlla bu nekkee ci dënd nit ñi rek defuñ ko kaamil buñ dee nit ñi am problème mu ne ko ñemewuma ko parce que yonent bi musu koo def lu yonent bi musul def man mii ñemewuma koo def yàlla dogal nag Omar nekk ci rek di ko di ko wax ak moom bàyyiwut ko ëllëg heure bu ne mu nekk di wax ba mu mujj Aboubacar ne yàlla mujj leeral sama xel comme ni mu leeralee xelu ah Omar ibn ma door a d'accord ak moom nag ne ko d'accord naa léegi nañu déglu kaamil ñu seet nag booba ña fa dàq jàng ci jooju jamono ñett lañu wax mooy maanaam Zayd ibnu Saabit Abdullahi ibnu Subayru Abdurahman ibnu Xaaris dem na ba ñeent muy Saïd ibnu ibnu Laas ñii nii ñoo ñi gënoon a mën alquran ci jooju jamono waaye ñett ñi nag ñoo gën a foor ndax yonent bi dafa daan wax ne bu leen bu ngeen bëggee liire dara ci téere bi yàlla bi dem leen ngeen laaju ko ñett ñii ñett ñam doon nag cité Ubay ibnu Kaab ci la bokkoon Zayd ibnu Saabit ci la bokkoon Abdullah ibn Zubayr ci la bokkoon ñett ñi ñoo ñu gënoon a man alquran jamono yonent bi ba yonent bi moo tudd seen tournée lu leen rëtt ci téere yàlla bi dem leen ngeen laaj ko ñett ñi léegi nag Aboubacar nag formé commission boo xam ne ñeent ñii ma lim ñoo ko jiite mu ne leen nag léegi dem leen ngeen seet alquran yi ngeen commencé bi ko dagale si yéen xamoon ngeen aaya bu ne fi yonent bi waxoon nañ ko fa bind aaya bu ne fañ ko war a bind yépp xam ngeen ko ak nañ ko doon bindee kon bind leen lépp ñu commencé nag di dagale di dagale di dagale di dagale di dagale ba mu maanaam benn aaya te aaya bu ba lañ koo bind foog ñu ko ñaari seede ñu seet benn aaya rek moo leen dese mun aaya ba nekk ca mujj ak tawba muy laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum ba mu jeex ñu wër ko wër vérifier vérifier fekk kenn rek ko am mooy maanaam abi xusaymata ñu ne moom de moo ko mokkalee nii te moom moo wax ne mu aaya bi moom mujj ci suratul tawba amuñu keneen ku ko seede ñu ne nañ ko bind ñu ne ah amuñ parce que aaya bu bind fañ koy war a bind ñaar a koy seede bañ demee ci Aboubacar Aboubacar ne ak ah, kay bëgg leen ko ab yu Xusayma mii kenn nit la waaye yonent bi defoon na benn seede mu taxaw ñaari seede ñu ne ko lu ko waral mu ne dafa amoon benn waaye bu jaayoon yonent bi gëléem yonent bi fay ko waaja miim ne ko fayoo ma dara parce que nit ñu bari dañoo ñeme yàlla ab yu Xusayma ne ko ak ah, kay maa ko seede ba nga koy jox xaalis bi fekkee naa ko yonent bi ne ko def naa sa seede muy ñaari seede moo tax nag keroog la Aboubacar ne ko léegi kon dañuy bind alquran ngeen jël aaya boobu ci ci ci benn seede bi ngeen jàppee ko ci lañ dajale alquran nag ci nii waaye nag dañ koy dajale ci nii tamit jàppal ne alquran amutoon tomb amutoon maska amutoon sidda amutoon bi maanaam ay xisib amutoon tamit ay saar mokkal nañ ko nag nii waaye amutoon mandarga moo mën a dem ba ne saar yu fii la yam xisib bi tamit fii la dooree misib bi fii la rubox bi fii la lii tomb la lii xaraf la amutoon waaye mokkaleekoon nañ ko noona ci làmmiñu Seydina Muhammad loolu nag boo ko mënee dégg pour nga mën koo dégg léegi rek mi ngi mel ni entrepreneur bi yàlla may xam-xamam ci wàllu bâtiment xam nga tey avant tabax bii mel nii nekkoon meloon na noonu ca xelam maanaam dafa mel noonu ca xelam ba pare mu door koo mën a dessin ci kayit defar la plan bi ba mu paree tamit ba nga ko sampee ci suuf si rek mu nuyoo lépp kon ma ne meloon na noonu tamit ci dënn yonant bi mu melal ko noonu maanaam ci dënni saxaaba yi waaye nag nekkutoon lu màndargaw bañ ne kër gaa ngi ni nga mën a dugg waaye man mandargaal lu loo xam ne nag nekk na lu teew ci xel def ko yomb na kon noonu nag la alxuraan man ci niñ ko mën a déggee mu jege léegi nag yàlla dogal Aboubacar génn àdduna Omar mu xataat génn àdduna Ousmane ibnu Affan toog ci xilaafa bi Ousmane bi mu toogee ñu war a dem pour war a xare ji mu ebal benn sariya boo xam ne Xusayfatu ibnu Yamaan nii moo ko jiite woon ñu dem Sham pour war a ubbi maanaam ànd ak waa Iraq yi ñu war a ubbi maanaam tabaarakallaahu foofa ba ñu mu fekk fa ay nit ci iraq ak saam nañuy jàngee alquran wuute naag la mu bàyyi madinatul munawara ci ak ay baat yu bëri bëri ay façon yoo xam dañ cee wuute moom na bi mu ñibbisee rek la gisee Ousmane ibn Affan ne ko ah, boo taxawaatul ci alquran li daloon yowoot yi ci seen téere bi ak nasaraan yi danañu daal dama bëgg léegi nga seet alquran formé ak beneen commission boo xam ne dañ koy liggéey liggéey boo xam ne benn façon rek la njàngin wi nekk kenn dootu amati wuute yeneen yi ci des yëpp nga la ci la moom tamit formé beneen commission boo xam ne ñi ma la wax ni yàlla fekkee na kii fekkee nañ ko mooy euh, Sayd ibnu Saabit fekkee na ko Ubay ibnu Kaab maanaam euh, ma euh, ma ak Zubayr yi moom ma wax jël leen ne leen léegi kaay leen taxaw formellement kii bi maanaam taxawul ma kaamil bi mu dem yónnee ci Xafsatu parce que bi Aboubacar génnee àdduna Xafsatu moo yore kaamil bi kii kon moo ko yore Omar ibnu Xataab bi Omar ibnu Xataab génnee àdduna da koo bàyyee soxna doomam muy Xafsatu di sox di soxnaa Seydina Muhammad léegi nag bi Ousmane toogee ci xilaafa bi bëgg liggéeyaat kaamil bi maanaam mu ne nag mu ne kon demal yónnee ci Xafsatu ne ko na ma abal na ma abal kaamil bi. même tey rek eh, tabaarakallaa ki nekk tey bu fi nit nekkoon ci place di liggéey nekk maanaam président keneen ku mu war a wuutu foog mu laaj dossier yi fi bàyyi woon ngir mën cee sukkandiku li ci lu rafet bu mën koo continuer lu ci lu ñaaw mën koo yemale foofu moo dem nag jëli maanaam kaamil ba jël ñii nag ñi mu pour ñu war koo taxale ngir maanaam liggéeyam. léegi nag bi ñu koy liggéey mën a leen bu ngeen wutee ci baat ni ñu koy war a bindee wala nu ñu koy war a jàngee delloo leen ko ci lugatu Quraysh ndax alquran ci lugatu Quraysh ci la wàcc parce que arab dafa bëri juróom-ñaari façon loxo yoo xam ne dañoo wute comme ni nga déggee rek da nga dégg ñu ne kii séeréer la waaye dana ci bëri ci séeréer yoo xam ne sax déggante wu noonu lay amee tamit ci pël yi du ñàkk tamit noonu ci tukkuloo yi arab tamit benn kii la benn langue la waaye dafa bëri ay bànqaas bànqaas yi ci gën a siiw juróom-ñaari bànqaas la léegi nag Euh, mu ne leen bu ngeen wutee ci baax rek na ngeen ko na ko bind ci luxatu Quraysh moo tax bañ demee ñoom dem nañ ci bind ba yegg ci baatab taabuut xam nga ñu ngi ci ñi wutee ci nu mel ni bi maanaa Abdullahi ibnu Saad Abdullahi ak Saadu ne ko bindee baatab taabuut maanaam ma bu suuta kii nag nga xam ne mooy Xudayfatu ibnu Yamaan yi ne déedéet nañ ko bindee baatab taabuutu maanaam mu nekk taaw maanaam marbuta werante am ca ñoom ñooñu ba dem ci Ousmane Ibn Affan mu ne leen bind leen ko taabu ci taabu boo xam ne ma ko suutala parce que loolu mooy loxo du Quraysh kon luñ ci mës a wutee rek moom moo leen delloo. léegi nag ci la bi kaamil bi pare ci la ko Ousmane nag mool ay mool maanaam bind ko loolu léegi nag da ko da ko photocopie waat def ko ay nusxa léegi nag yónnee ko ci dëkk yu mag yi Iraq yónnee bii Sham yónnee bii maanaam bi bee waa Madinatu Munawwara yore ko. fépp fépp fu l'islam capital l'islam yi nekk rek am saarum maanaam l'islam yi rek benn bu ne mu yónnee fa kaamil kaamil yi ko jiitu woon yëpp mu mu mu mu dajale ko lakk ko ci lañ jëlee ba léegi ne alxuraan boo ko gisee muy sànku di yàqu foo xam ne ngay ragal mu dugg ci sobe mën nga koo lakk bu la neexee ci biir moo gën parce que mën ngaa lakk mën nga koo suul ñu ñëw tabax fa benn wala ñu gas fa doo ci xam dara waaye loo xas lakk rek loola moom maanaam du mucc na kon Ousmane mooy ki njëkk a lakk ko ci ci kii yu njëkk yi tamit li kaamil bi mu dajale ni li muy rëy rëy taxul mu am tomb amul maas amul sidda amul tamit ay xisib ak i nisif yooyu yëpp amu ci gannaaw bi nga xamee ne léegi ñoom ñëpp génn nañu àdduna Ousmane génn na àdduna Ali ibn Abi Talib àdduna ba mu nag maanaam ñeneen Muawiya ñëw génn àdduna ba maanaam Marwaan ñëw Abdul Malik ibnu Marwaan ci xilaafaam ci la ñu dooraat ci la ci la door a ebal ku ñuy tuddee Abu Aswad addu Ali ñenn ñeneen Yaxya ibnu Yaamur dégg nga de ñeen dégg nga de ñu ne ñenn ñi Yuusuf ñoom ñett ñi ci la ñu werante ñoom kenn ci ñoom moo moo moo tomb alquran moo indi masque yi moo defar saar yi moo defar xisib yi mi ngi fi woon nag comme ni ma la ko waxee moom dafa ñëw rek pour mandargaal ko kon kooku mooy ki ko defar dañu ñett ñi kenn la ci waaye mun naa am sax ñoom ñett ñëpp la kii mën naa tàmbali euh, kii ñëw jàppale ko ci ba liggéey bi sotti ndax liggéey bi bu réyee nii mën ngaa jàppale kenn nit pour mu def ko dana ci nekk lu yàgg-yàgg léegi nag ci lañ mujj nag indi alxuraan ji nag tasaare ko nag mu mujj mel ni bay si ci tey nit ñi mën koo jëriñoo kon alxuraan foog ñu mën a xam histoire am ndax ñu mën koo jox gëdd wane ne lii lépp ma jaar li ma ci jublu mooy seetal li yonantu bi daj ci alxuraan waaye gannaawam tamit seetal ma saxaabaam yu màgg yi li ko dolee ci Aboubacar ba ci Ousmane ba ci ñoom Aliyu ñëpp ba ci Abdul Malik ibnu Marwan ñoom li ñu daj ci alxuraan maanaam ngir rek liggéey boo xam ne ñoom fekkut leen fi waaye ngir bëgg ñun ñii nga xam ne ñun la ñu bàyyi gannaaw maanaam ñooy nekk seen gannaaw ñi war koo mën a jëriñoo kon ñoom timit dëgg-dëgg mën nañ leen wax ne gàcce ngaalaama yàlla ñu leen yàlla fay ñu nekk ñoo xam ne seen liggéey wax dëgg yàlla rafet na noonu tamit la fonk alquran wàcc di ñëw di ñëw di wàcc si di wàcc si ba yegg si suñu mag ñu nekkoon ñoo xam ne alquran na leen gën a lu dul moom wàcceel tey ci Sidi Ahmad Tijani nga xam ne tabaarakallaahu bañ ko laajee alquran dafa wax ne benn aaya ci alquran rek ab yoolam kenn mënu nekk di ko misaal moo ëpp lu dul moom yool moo xam salaatu ala nabi la moo xam ay daawa ay ay ay ay ay daawaat la ay ñaan yoo xam ne mba suura la dañ koo solo ci yonantu bi ak yuy solo wu jëkk mu ne alquran du moroom yi dara ci moom mu def ko nag ñeenti xaaj ne nga xam ne day jàng alquran te bu diglee mu def bu teree mu bàyyi bu xuppee mu tiib bu béglee mu bég bu waaraatee bu xisaa mu yéemu jàng alxuraan la gën lu dul moom moo xam te fekk tamit xam na firi wala xamu ko waaye rek xaaj mujj bi rek laa jël mu na koo xam ne nag buy jàng alxuraan bu diggee def bu teree du bàyyi bu xuppee bu béglee du bég moom jàng rek la am waaye bu bu bu tegee kaamil ba moo gën a bon ñëpp seet nee na kooku na bàyyi alxuraan dem di jullu si yonent bi ndax mu gën a jàngee alxuraan alxuraan da koy rëbb ndax yonentoo waxoon ne rubba qaari'in fekk wal qur'aanu yam'an na kuy jàng alxuraan te fekk alxuraan la ngay waaye salaatu ala nabi nag loo bon bon yaa ko tax a du la rëbb mukk boo doon sàcc di fen di njaaroo di tappale di jàng sa def salaatu ala lu tax mukk mu rëbb la kon alquran dafay am noo war a mel door koo mën a jariñoo waaye am na noo xam ne boo ko melu alquran da ngay da loxo salaatu ala na noo mel rek moo man naa ànd ak kon jamono jii dama du ma wax ñëpp waaye li ëpp ci nit ñi salaatu ala nabi la ñu def ndax ñu ëpp ci nit ñi fañ war te fi nga war a ne boo fa newul alquran bu ñëw di dafa fekk si waaye nag kon taxem ci salaatu ala nabi bi nga xam ne foo ne moom mu fekk la fa kon boo ko doon misaal dangay wax ne alquran ak salaatu ala nabi yi noo ko mën a misaale ki ji jamono jàppal ne alquran ci boppam saakoog dugub la salaatu ala nabi di kilo caay léegi nag dëkk boo demoon rawatina ñu sant siise nga ne leen maanaam kilo saakoog dugub ak kilo caay lu ca gën ñëpp dañuy wax saakoog dugub moo gën parce que moo gën a bëri ay kilo waaye bu ñu ko waxee nee na saakoob dugub ak kilo cere lu ci gën waa gi nee na dugub nee na ko buy ko xiif buy ko xiif yaakaar naa jël cere ja moo gën maanaam jël saakoob dugub ndax bu jëlee cere ja moom amul dara day jël lekk bu yàkkamtee ba yàkkamtiwul mu def ca ndox amul benn problème fekk na pare la kon salaatu ala nabi cere ju pare nga ñëw rek amul benn condition waaye nag alquran saakoob dugub la bala nga koo mën a lekk muy nekk cere da nga sot ko da nga wal da nga mooñ yaakaar naa sax da nga suusal mu door a nekk cere kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax nga xam ne wa man yaqul anna salaata aksaru ajran min alqur'ani laa yukfar noonu la wàccee ba ci Cheikh Omarul Fouti yu moom fu mu toll ngiseem bi danaan yore def ci téeréem yàlla bi rek di tukkeeg moom fu mu ko euh, kenn daay fekk wala guddi balaa def dara rek téye téeréem ba jàng moom alquran rek moo doon wéttalam moom la daan demee ci xar yi moom la daan defee ci lu ne noonu nga koy wàccee ba ci xaadimu rasul mi daan wax ne alquran mooy suma wéttal fu ma nekk rek moom laa fa neex fu mu nekk tamit man man man la fa neexal lu waral moom bañ na ko dund na ba génn àdduna amutoon poos nangutoon a fanaan ci lal loo mos a yëkkati mu ne tegal ci kaw tegal ci suuf ba mooy alquran boo ne alquran mu ne tegal ci kaw boo yëkkatee leneen lu du alquran mu tegal ci suuf kon moom dundam yëpp loolu la ba benn bi sax mos naa génn néegam fekk ñu gën fa xaalis bu bëri mu ne waaw Cheikh Anta kan moo jóor mbalit mu bëri mii sama buntu kër moom xaalis bi muy bëree ba rek li ko nit ñi rayante mu ne mbalit la mu ne ko ah dama foog ne taalibe yi ak soppe yi ñoo ko fi jur mu ne ah kon jëlal mbalit mii nga dem tuuril ma ko sama kër Seex Anta la mu jël mbalit mi rek yóbbu kër ñu toog a toog lu yàgg a yàgg Xaadimu Rasuul laaj ko ko waaw Seex Anta ana ma la doon tuurloo mbaa fi nga ko tuur sori na mu ne ko mbàkkee sa mbalit kenn du ko tuur ci àll sama kër laa ko tuur wax ba génn ca kon ñoom fi ñu tegoon alquran rëy na moo tax mu daan wax ne kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu walil ilahi bihi sakkan noonu nga koy fekkee tamit ci Seydil Hadji Malick nga xam ne moom dundam lépp da ko daan jàngale alquran dana wax ne su doon tànn métier mooy ñu itam jàngale su demoon ba lott ci jàngale li muy li muy li mu li muy tànn mooy maanaam métier maanaam médecin nekk maanaam kenn ci médecin muy muy métier médecine muy faj nit ñi mu ñaari métier yi ñoo ëpp yoon ci xeeti métier yi fekk ku feebar nga faj ko fekk ku nga jàngal ko ndax ñaar yëpp ci bunta faj la moom ñaar la tànnoon moo taxoon mu jub dundam demoon na ba a gisatul waaw sëñ Babacar ne ko ah, sëñ bi fu mel nii man ngaa noppalu ci jàngale nanga ma ak nangam toogal mu ne de de leen ma tuddal may firi ndax fu mel nii fii ma toog fi toog te jeexalu ma dara a ñoom nit ñee may fay courant ñoo ma joxel dépense lu ko waral yëpp dañoo fay maa ngi liggéey ci diina rek ba amatuma benn jot diina rek laay liggéeyal ba tax ñoom ñu fekk ma fa di ma jox man ci kon nag man su ma fi nekkee jàngaliwu ma liñ may jox bu bu yomal xëyam fan laa koy laye ci kon li xew léegi toog tabaarakallaahu yore sa kat kat say jeeg wër la mel na masala doo ko jàngale léegi rek la ko nit ñi te loolu la jox nga jël waaye mag ñi musu ñoo ñemee xëy te joxe wuñ ay darsu jàngale moo doon seen jikko noonu ko koy fekkee ci al maam Alaaji Abdoulaye Niass mi nga xam ne bañ na ko moom ba firi na alquran téeméeri yoon ak fukk ak ñeent mu tolloog li misaari alquran yi ba maam Xalifa Niass bañ ko laajee mu ne dikrun hakimun fa zid tarbiya fikrihim mu ne alxuraan mooy téere bu tedd bàyyee ko ci ku tedd ñu wàccee ko ci jaam bu tedd yow nag boo bëggee bokk ci ña gën a tedd ca xeet wa foo toll rek defal alxuraan muy sa wétta gis nga mag ñi moo tax seen kër yi du gent ñoom ñëpp génn nañu àdduna waaye seen bàmmeele ñoo joxe ñoo joxe tey dépense yi bañ fi nekkee nag nekk fekk ay buur ñenn ñi tudd ay teeñ maanaam di xëccoo àdduna di xëccoo nit ñi mag ñi sonn lool amuñu sax dépense bu sax waaye nekk ci alxuraan di jàngale rek ñee ñoom yore pouvoir ba ñu bëggoon am nañ ko waaye nag gis nga ba ba yàlla wëlbatee mbir yi rek ñoom ña newoon ca kanam nekk ca gannaaw suñ mag ngeen niroo woon na nekkoon ca gannaaw mu